seen xeex lenn rek la mooy sauver hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff intersyndical bi lëkkale liggéeykat yi jàpp nañ ni jamono gi bërëbu fajukaay bi mu ngi jànkoonteel lu doy waar ndax rek yorin bu bon bi nga xam noonee la ko ñi ko jiite yoree. hôpital baa ngi nii depuis des mois fonctionné wul comme ni mu ni mu war a fonctionné hôpital bi am na presque budget neuf milliards mais tey jii li fi gën a tumuraanke mooy nga am accident ñu indi la fi ñu war la opérer ñu di la xaarloo ba mu mat vingt vingt jours nga dem feneen. loolu yor woon ko may kenn tey jii bu leen waxoon yi ñuy defar nii ñaata ñaata lañ dépense ci xaalis da naan da ngeen naan ak yeneen ñuy toog ñu naan directeur bi chaque année day voyager yoo xam ne dañuy coûter ay millions naan day dem ay ay Istanbul jóge fa dem New York dem lan la fay wuti. liggéeykat yi sax ñoo ngi yëglu. di xamle rek ni bakkanu woy tawat yaa ngi si xottu gerte ndax rek ay mbir yu doy waar yi am si biir bi bile l'hôpital nee nañ saa yi ñu demee grève directeur bi dafay jël ay fajkat yu seen xam-xam màccul ngir ñu remplacer leen. jéem nañoo forcer parce que li leen intéressé mooy dañuy def rapport toujours bu nit ñi grévé ñu ne non bloc bi yëpp au moins salle bu nekk teg nañ fa benn malade mais ñan ñoo leen opéré est que ñooñu ay agent yu diplômé lan est-ce que ñooñu am nañ qualification est que ñooñu war nañoo opéré. ba keroog am na malade boo xam ne ci taabal bi la deewee te loolu dinañ ko leeral. liggéeykat yi amuñu foofu nee nañu sax seen directeur da leen di sàcc sàcc yu ndaw si seen i salaire. yow au moins booy sàcc bind ko ci kayit bi da ngaa sàcc mais yow nga jël kayit salaire u jàmbur nga bindal ko montant bi nga ko war a viré ba tamit kooku dem ci compte loolu nekk fi parce que viré woo ko loolu loolu nu nga ko mën a lu sàcc. li ñu bëgg mooy mu jóge fa si ni mu gën a gaawee ndax âge retraite am yegg na fa.